Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah eh, man la Ousmane Dramé mu bu la réveillé conscience eh, dañoo del si rek eh, wax jëme ko camerounais Ce ne sont pas tous les camerounais mais da ci am ay comédiens qui ont ne li ñu ils n'ont rien compris du pan-africanisme les camerounais n'ont rien compris du pan-africanisme panafricanisme À leen niveau wala xam-xam wala benn moyen boo xam depuis la colonisation de l'Allemagne ba français ont jël le jox Amadou président depuis 40 ans 50 ans il est au pouvoir Vous ne vous pouvez même pas dégager vous pouvez même pas dégager Paul Biya et vous nous permettez de dire que le Sénégalais pas dégager le pétrole bi nga nous ne ñoom la concerné waaw je vais vous parler un peu du Cameroun les Camerounais sont civilisés, yagout. Moi, je me rappelle en 1976 77 quand quartier latin ngi toog ci restaurant et di en tant que des étudiants sénégalais tu vois des ministres camerounais et regarde les sénégalais oh il est fort il est assis avec le blanc oh le sénégalais là mais Yagout, en 1977 quand un camerounais voit un sénégalais asseoir avec un français ou bien s'asseoir ah, dans un restaurant. Ah, mais comment le Sénégalais est arrivé à manger avec le blanc je ne comprends pas. Eh, Gourgui, il est fort. Mais en 1976-77, à Paris, dans les Niéchi, les premiers instituteurs camerounais étaient des Sénégalais. C'est nous, les Sénégalais, qui avons appris les Camerounais à parler le français le Camerounais le enrichit ses phrases utilise des gros mots pour nous pour c'est un cadre c'est un intellectuel au Cameroun quand tu parles bien le français tu cherches de gros mots en français on dit oh lui là c'est un ingénieur français lui il est formidable lui il crée des mots oh lui là lui là c'est comme ça qu'ils font au Cameroun Hein ces gens là dama ne sont pas les tubaab waaw te billahi wallahi lu wér je ils di dama ci doon bañ ne rek les ndax Ils ñëpp africain vous les sénégalais il faut pas écouter ces ces sortes de personnes bla bla bla bla bla ah ils ouvrent leur gueule pour ne rien dire ay pas les

kenn duñ dicté na awal petit à petit l'oiseau fait son nid Nous ñun ay sénégalais nous duñ ay oncle Tom Sénégal oncle Tom néewu oncle Tom est ni ni ni le président du Togo ah oncle Tom le président du Côte d'Ivoire oncle Tom le président du Bénin oncle Tom Nous, sommes ñu ngi sont tous des oncle Tom ils sont là cette bande d'oncle Tom Nous sommes ñi ngay wax waaye ñun Sénégal position forte boo xam ne moom la ñuy du ne awal fii dama suñ position kenn mënu koo changer waaw bu ñuy quitter CEDEAO dañu programme lañ am programme waaw ay escalier la ñor waaw dañuy yegg ba ag fa war a àgg dajji la ñuy dajji vous les Camerounais si vous comprenez que le Sénégal le Sénégal est, est un pays d'oncle Tom ah vous vous trompez vous vous trompez té li ma wax moy li am waaw wax na leen ko ba tay yéen Sénégalais yi ñii suñu mbokk lañ waaye foog ngeen yërëm leen foog ngeen yërëm leen du ma bu leen defi nawle bu leen defi nawle duma leen ko wax waaye ñii ah dañuy cirque waaw dañuy cirque balaa balaa balaa foo leen fekk ñi tararari te xamuñu dara dama ne man ak ñoom dama de ba may nekk Paris en 1976 77 75 je m'assoyais avec des blancs ñuy naan café Ah, quartier latin Saint-Michel Camerouni ah, Camerouni ministère ministère eh, regardez le Sénégalais là il est fort il assoit le blanc là regarde regarde regarde ah, il change de cuillère eh eh il, il, boit sur la même peau il boit même peau il boit même peau eh regardez même verre ces petits cons là ils sont déglu ah bu len déglu il faut les oublier te nous, nous continuer lañ doon def Camerounais camerounais ki kim njëkk gis ci tubab kim mu tubab bi njëkk tek teg ab sénégalais la sénégalais bu karawatu bu karawatu ñi diko wër tëggum dënd dëkk bépp ñëw ñu di ko xool naa regarde il a attaché un cordon là ah le coup là le coup là il a attaché ah c'est un mangeur de chien deug la day lek golo mi ngi ni ah difa ngeen ñi war ngeen leen a hein ah ñun suñu rëbb suñu rëbb sa dañ koy rendi dama ne ñu bari ñoo consommer dara ah dañ koy tër waaw ne bismillah ne de xar yi waaw ñoom ñi ko ci rendi gisuma ko waaw golo kañaak lépp lañuy lekk waaw ñu mel nii nag te yàlla forcé leen ngeen ànd il faut nga nangu li yàlla dogal waaye bu leen bàyyi nag bu leen bàyyi ñu yàq sa boppi xale moo tax ma tontu ci xale yi laa ba ñi yàq seen bopp Alassane Ouattara mi c'est un major de golo waaw il n'est ni musulman nii chrétien ni ni du dara c'est un c'est un veille programmé par les Français ñu le Sénégal n'acceptera pas cette manipulation nous, nous le mani sur neexoon sax le Sénégal le le Sénégal réglé wala Sénégal réglé le ah, Cameroun am dara y avait l'AOF l'Afrique occidentale française pour mieux gérer ses colonies la France avait regroupé ses colonies comme des animaux comme des troupeaux au ko ci Sénégal c'est le Sénégal qui commande tout Hen Cameroun le Cameroun ne devait pas exister notre problème c'est l'existence du Cameroun waaw AOF un blanc est venu nous a regroupés comme des animaux ah AOF Afrique occidentale française et la capitale était bien à Dakar pour payer son impôt le Cameroun le Cameroun prenait le cheval jusqu'à Dakar pour payer ses impôts et retourner Hein? vous nous emmerdez même. li ne on veut pas tout dire On hein? on veut pas tout dire On hein? on veut pas tout dire mais je vous maîtrise je connais bien le Togo je connais tous ces pays là mon grand-père faisait le trajet qui gérait la justice de ces de ces indigènes je connais bien ce qui se passe dans les années 1900 1800 1700 1960 60 les Camerounais n'ont rien compris te loolu dëgg la dëgg la Sénégalais bu Sénégalais bu daan sol tuwéy Sénégal bu jëkk sol caaye caaye taxaw te ne regardez regardez parce que ñoom dañ daan ngemb ah ci garab yi dañuy fanaan ah dama ne kaña kaña kaña duñ ko fees ñoom dañ koy lakk les lekkaale der bi ñun on mange pas du rat au Sénégal nous on mange pas euh, le chien au Sénégal nous on mange pas le chien au Sénégal nous sommes civilisés nous sommes civilisés, un peuple civilisé. Hein? Mais par erreur, par erreur, hein, la France a, découpé l'Afrique. Par erreur. Mais la France devait donner l'Afrique dans les médecins des Au moment où ce blanc était chez nous, c'est la capitale est Dakar. Hein? Vous allez traverser le désert pour venir payer vos impôts. Et maintenant, vous essayez de nous emmerder. votre président là est là. Un président à vie. Un président le plus âgé du monde un président qui a fait plus de 50 ans de pouvoir et vous entrez de gueuler comme ça, tu n'as rien dans la tête, monsieur. On te laisse parler. On te laisse parler. Voilà. c'est moi, ma ma tout tout tuuti beaucoup bëgguma làkk tubaab sax mais damaa bëgg mais dans xam li may wax waaw damaa bëgg ngeen Cameroun yi vous allez comprendre ce que je dis cause pour laquelle je mets quelques mots de français vous nous avez mer arrêtez vos bavards ah dem leen ngeen jàngi wala ngeen yi le pour maîtriser le panafricain il te faut nga au Sénégal Bonjour, au Sénégal ko l'université du panafricanisme est à Dakar docteur Cheikh Anta Diop c'est le professeur c'est le maître fondateur du mot le panafricanisme C'est ah, ki Yakar, qui Théophile Obega Théophile Obega ma il était professeur ici à New York je l'ai connu sur les côtés de Cheikh Ante Diop c'est lui c'est lui qui a importé c'est lui qui a exporté, I'm sorry, qui a exporté le, le, panafricanisme chez vous. Hein? Vous nous emmerdez, mais arrêtez. Hein? Oncle Tom Yangini, nous sommes des hommes, nous sommes un peuple sénégalais, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple qui était là, combattre le blanc. Nous avons tué combien de blancs Combien de blancs ont perdu leur vie au Sénégal On les a assassinés au moment de l'esclavage et et même la colonisation, nous étions tous des combattants. Pourquoi la France disait que le Sénégalais est un Français Le Sénégalais est fort, le Sénégalais est intelligent. Je vais partager l'Afrique avec le Sénégal. Je vais partager l'Afrique avec le Sénégal. C'est ce que le blanc voulait. Ici, c'est Seigneur qui a tout gâté. Mais sinon, la capitale, la capitale de l'AOF serait Dakar et continuera Dakar, Dakar. Qui c'est euh, cette c'est c'est un imbécile goudronné qui du nit il n'a rien compris waaw son savoir c'est le français bon quand tu quand tu maîtrises le français tu es un cadre tu es un intellectuel au Cameroun loolu mbir mi demee Cameroun même euh, dans euh, da ngay taxaw di tu vas nit ñuy déglu parce que xamuñu ko xamuñu lu xew waaw nun du lekk golo wax naa ko nun du lekk ko nan dul rëbbi jàpp ca àll ba lakk ca àll ba togg non dañuy rendi ba mu dagan ñu indi ci kër yi togg ba mu ñor bokk suñu njaboot lekk te kaña di co bokk jana di ca bokk dama ne ñun du lekk golo le blanc dit boo bëggee gis sa bopp ne regarde pas le miroir regarde ce que tu manges view na yourself ah da xool li ngay lekk you have to look what you eat ce que nga teg ci sa bët loolu moom nga Cameroun yi ak ñi ay golo lañu lekk ki kañe golo kañe te Sénégal duñ lekk golo duñ lekk kañe waaw ñii bu leen leen déglu suñu maama ma si def seeni maam metti na mais foog nu wax ko nous avons accepté que ñi ngi ànd di wut loolu ñu naan souveraineté souveraineté ko amul indépendance mënu ko kon ñëpp ñoo ko bokk di wut kon nañ dal nañ dal tubaab bi noo ko indi Cameroun tubaab bi am na juróom-benn téeméer avant ñu ko indi Cameroun ñii bu leen leen déglu ci bu leen leen bundu fontoo waaw encore nu bokk di remercier Guy Marius Sagna il a fait un euh, benn tournée boo xam ne am solo la ñii nag ñoom li wax yëpp eh, waxuñu waxi dara daal affaire illustration yu ñàkk fayda ci la ñu nekk nii parce que nii lañ toll quoi kenn ku ne na nga toll moom ngay def daal wax naa leen ko bu leen leen duñ suñuy nawle sax laay wax parce que looloo am waaw liñ leen rawee dafa bari dafa bari daanaka ñii euh, dañuy waaxuy ñoom mais ak seeguñu Quand nun nag ñu ngi ci jas ñu ngi ci digg bi on va contrôler tout et le système sera contrôlé euh, président Diomaye li mu xam na ko bu leen déglu baadoole yi bu leen leen déglu sax il parle pour ne rien dire il parle pour ne rien dire encore bu leen leen déglu bu leen leen déglu le Cameroun bi nga xam ne français yi jël nañ ko ils ont pris des ouvriers sénégalais bâtiment yi njëkk a am yi njëkk a am sénégalais ñoo ko tabax même au Gabon au Gabon bi ñuy seen loo fa gis Gabon Sénégalais, yi tubaab yi jënd yóbbu ñu tabax ko ñoo leen gën a avancé ñoo leen supérieur te dama wax supériorité sax la wax parce que tubaab bi nekk naa ñun du yàgg waaw ñun ñoo doon seen dama ne ñoo doon seen si deux Camerounais se bagarrent tu vois l'autre lui dit hey eh, eh, hey pour qui tu te prends mon cher pour qui tu te prends toi là hein? tu n'es pas blanc hein? tu n'es pas Dieu hein? tu n'es pas français et tu n'es pas sénégalais mais pour qui tu te prends c'est comme ça que les Camerounais se bagarrent qui tu te prends Pour qui tu te prends Tu n'es pas sénégalais, tu n'es pas Dieu. Toi là, tu n'es pas français, tu n'es pas blanc. Pour qui tu te prends ah maman ñoo nous xam leen lu oh, leen di sakkan lu ci xam nous, leen ci Mali ah avec vos français de de merde là vous nous emmerdez en train de gueuler parler pour ne rien dire arrêtez conneries monsieur ah tu peux rien changer au Sénégal ah tu tu même pas fait déplacer Paul Pour Paul bien est là-bas depuis quand ah vous nous emmerdez mon cher ah, la, le panafricanisme est né à Dakar. Est né à Dakar et nous allons continuer le rythme sans vous. Et nous allons réunir l'Afrique par force. Par force, nous allons réunir l'Afrique. Une unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique. Nous ne suivons pas le Cameroun. Nous ne suivons pas. Pourquoi Vous ne pouvez même pas séparer vos dinosaures là. Vous ne pouvez pas le euh, voir. Avant, je l'écoutais. Je l'écoutais comme un comédien. Mais maintenant, il exagère. Je ne veux même plus l'écouter quoi. voilà kii bu leen waxatee moom waaye fa bi nga xamee ne tubaab bi ñëw na Sénégal euh, am na fa ab biir am na ñu ne trois siècles am na ñu ne deux siècles mais ak lu mu ci mën doon tubaab bi dikk na Sénégal ba nekk nun xeex ak nun jàpp ci nun i jàmm ñu rey lu bare baree bari mu rey ci nun lu bari tubaab bi génn guddi génn guddi laa bataay bi nga xamoon am amoon na Bakel Mamadou Lamine Dramé ren ci téméri tubaab ci génn goudi téméri tubaab ci génn goudi sen dekk yi nek Afrique Afrique amul ku ci maseeraay xaju tubaab amu ci amu ci ñom ñepp dañu nek colonisation bu metté metti lañ nekkoon tubaab bi nak pour mën contrôler Afrique il fallait mu tendre la main au Sénégalais moo mu jëloon Sénégal bu Afrique équatoriale ak Afrique occidentale française tubaab bi du ko jëloon lépp teg ko ci loxoy Sénégalais. dama ñu doon administrateur yi ñoo assu parce que nangum jaa njëndum jàmm ku ko nangu war ngaa mën a nangu colonisation te njëndum jàmm kenn bëgg ko woon xeex nañ ko xeex xeex waaye bi colonisation bi dikkee ah tubaab bi dafa am ñoo xam ne ñoom la àndal liggéey moo tax mun a Sénégal bi intelligent ne yow Sénégal bi yow tubaab nga tubaab nun nu gëm ko dafa mel ne rek sun or bi ñu jël di ko yóbbu Dubaï ku dem Dubaay gis or ba waa nag or Dubaay or Dubaay bi ngay wax ah te or bépp ci réew mi lañ ko sàcce boo demee France or ba fa nekk dem bare des lingots door mu nekk banque centrale bu Paris te or boobu or boobu Afrique lañ ko sàcce mais oru France ngay wax kon colonisation bu amee tubaab bi dagg Afrique équatoriale te ko ne dagg AOF boole leen mu taqaloo mu jël buum gi yeew ba mu dëgër jox Sénégal dama ne bi ñuy am indépendance bi ñuy am indépendance Sénégal moo réclamé Afrique gépp waaw le Cameroun est une partie intégrale du Sénégal intégrante du Sénégal mun leen koo bañ Senghor moo mal négocié les indépendances pourquoi ngeen dem Amadou ay joola ko fa indi xam nañ ko tubaab bee ko fi teg butu ko benn commission d'administration française bu superviser dëkk ba waaye seen lépp se yéen bu ngeen di fay lempo bu ngeen na fay lempo da ngeen romb forêt yi da ngeen romb forêt yi da ngeen romb géej gi da ngeen féey da ngeen traversé désert bi ba ak si Dakar fooy seen i bu ngeen fa jënd seeni bagaas nag daal di dellu Cameroun kon nun mu leen du jaaxal ci lenn lenn lenn lenn waaw Sénégal bi njëkk a indi deux morceaux Cameroun dañ ko jiital ba ca président ba ne ko kii kirim sol Amadou Ahidjo te loolu yàggut ay Ahidjo commandé ci fukki mel noonu waaw génn xaalis ni xalif demal Sénégal nga ñaan huy mil li ma di ko sol kon nun dama ne duñ seeni morom dañ leen di bàyyi ngeen di wax rek parce que bëgg ñu tontu africain bëgguñu ko waaye xam nañ li ngeen di añee xam nañ ko waaw il faut respecter les sénégalais duñ seen morom lii ma leen wax ci Paris mooy li am waaw ma xam leen bu baax a baax a baax li ñuy ay ay bokk rek a tax mais bu fekkoon mën ngeen a xeex da ngeen naan AOF ak ak ak. Euh, ak ak AEF ñu booloo mu doon benn état loolu ngeen waroon a wax sax waaw te yéen sax xamu leen luy état xamu leen ko allemand yi dañoo yor ba doyal duma rey jaay def ci lu leen neex jox français yi français yi duma tëddee rey jaay ah français yi nopp ci yéen dajale lépp teg ci loxol Sénégal Sénégal a géré woon lépp ah tey ngeen di xatraay jàng fi làkki tubaab yooyu xewi na Cameroun Cameroun jëkk a dégg tubaab ah dañuy met dafa daan mel ni movie da ngay fay dugg bu ko dee waa ji rek ah tubaab waay o oh, ndax waxi dof yooyu ñun xam nañ li dañuy bañ di wax parce que ay bokki neen lañ te yàgg-yàgg ñooy ànd waaw Afrique équatoriale boobu ak les pays du Sahel dañuy ànd par force te daañu leen boole te diñ koy liggéeye nag Dakar lañ ko war tailleur bi Dakar ne Dakar lañ koy taayee defar ko ba mu normal CEDEAO bi day dem day dem mais

pré woon na pré woon na pour jox ñu ind jox ñu AOF ak ak ak lépp nekk Dakar mais France dafa ragal les États-Unis dafa bu mu diviser ñu dem parce que dañ ko ne ñii buñ àndee ëpp doole ci àdduna moo tax mu dagg ñu ay morso mais la France noppi woon na pour jël le Cameroun mu une partie intégrante du Sénégal waaw loolu moom am na te ko Amadou ay Diop bi mu sonnee daa daw ñibbi seen Dakar ñun Dakar moo mooy seen Paris les Camerounais seen Dakar moo seen Paris.